asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokk yi nekk ci xum tv bi ak ñi nekk ci alul bayt tv ak ñi nekk ci uraasil iraada bi yëpp ñoo ngi leen di nuyu dellu ci waat nañu ci tafsiru quran bi ñu leen di defal mu di tafsiru quran bu ñuy tudde mawridu zamaan fii tafsirul quran bi luqatil olofiya te ku ñuy wax sëriñ ma umadu dem jurbeliyu moo ko def tey nag fi ñu yemoon démb mooy illa xalilan minkum wa antum mu'ridun foofu lañu yemoon démb tey foofu la ñuy dalee xam nga démb jàng nañu ulaayika ashabul jannati hum fiha xaalidun wa axadna mitaaqa bani israil ala taabudu illa allaha wa bilwalidaini ihsanan wa zil qurbaye walyataame walmasakini wa qulu linnaasi husnan waqimu salata waatu zakata suma tawallaytum illa xalilan minkum wa antum muridun foofu lañ yemoon bërki démb foofu lañ yemoon démb tey nag foofu la ñuy dalee aoudu billahi min ashaitan irajim bismillahi irrahmani irrahim wa istaqas naa ba nu jàppee miisaaxakum miisaaxakum wala rësiin laa tasfikuuna du ngeen tuur dimaakum deret seen wala tuxrijuuna du ngeen génne anfusakum ay bopp seen maanaam génne hante min tukkee ci kër seen suma aqrartum topp te ngeen nangu wa antum te yéen tashaduna ngeen seere seen bopp te nangu gi ngeen nangu woon loola ma dige ak yéen su ma antum topp yéen nag haulaa'i yéen ay ñaaña taxtuluuna da ngeen rey anfusakum ay bopp seen da rey seen bopp nag moo di reyante giiru banu israil ñoo bokk genn giño kon buñ dee reyante dañuy rey seen bopp ndax bu ñu jeexee dañuy jeex wa taxuri joona te ngeen génne farixan ab kuréel min kum ci yéen min diyaari im ci kër seen tazaaharuuna ngeen di dimbala ante alay im ci ñoom almuzaaharatu jooju jàppalante lay tekki alay im ci ñoom bil ismi ci bakkaar wal udwaani ak ak noone wa in yaatuukum ndeen dikkal na leen usaaraa ñoñ ñuñ jàpp di ay jaam tufaadoo um ngeen jot leen ki nga xam ne sa mbokk la buñ ko jàppoon jaam nga dajale alal jot ko boo ko dee xeex di ko rey sa bopp ngay rey wa uwa te luy mbir muharramun lu ñu xaraamal la aleykum ci yéen lan lañu araamal ci ñoom ixraajuhum ak génne seen awsu la ak xasraj awsu la ak xasraj ñooy lan saar xuraysatu ak nazir ñoo di yahudiya boo xamee ne bii laws ak xasraj ñi ngi xeex xuraysata day faral aws nazir farak xasraj ñuy reyante ñii ànd ak ñee ñaa ànd ak ñaam ak a génn ante te bu ñu jàppee seen mbokk ñu jot ko looloo tax mu ne leen afatuminuuna ndax da ngeen di gëm bi kitaab yi ci lenn ci téere ba wa takfuruuna te ngeen weddi bi ca leneen lenn la fa ma jasaa'u man déet fayu kaaka yaf alu dana mu def zalika loolee minkum ci yéen illaa xisyun ndare gàcce moo leen cay fekk ndax rey nañu bani xuraysata jàpp kenn génne bani nadir génne leen ba noppi gàlle leen galak te loolee mooy seen ak mujj te bañ fay nekk seen bi dikkagul yow dina xaaj ñaari xaaj ñi ànd ak aws di ko jaay gannaay di ko jàppale ci xeex ñi ànd ak xasraj ñi dajee xeex seen bi bopp di reyante te buñ jàppee jaam sañee dañuy dajaloo dem jot ko xisin jooju nag dee gi la ak njàpp jaam gi ak génne gi ak fayloo galak gi fil ayaati duniyaa te dundot duniyaa ba di jege wa yawmal qiyaamati ci ci bis penc ba nag yu radduuna dees na delloo leen ila ashaddi azabi jëm ci aji tar ji mbugal ba man laa uddee sunu borom bi xaafilin di aji sàggan amma yaxmaluuna ci la def ñoom ñooñu ulaika gaayoo yee allatina ñooy ñaaña istaraw jënd nañu alxayaata dunya dun ba di jege dundu ga di jege muy àddina bi laaxirati watte ko laaxira wala yu xafaf déeful wayafal an um ci ñoom wala an um walis leen mbugal ga al mbugal ga wala um déet ñoom yun seruna dee ci dimbale leen ca mbugal ga wala xat aatay naa te dikk nañu Moussa Moussa alkitaaba téere ba muy tawreet waxa fay naa te tox te nu tofal min baadi yi ca gannaawam tawreet ak Moussa bi rusuli ci ay yónnin wa aataynaa te nu dikkee Isa ibnu Mariama Isa doomi Mariama albayinaati kéemaan yu bari wa ayadnaa wa ayadnaa u te nu dëëral ko bi ruuhil qudsi ci Jibril muy ànd ak moom fu mu jëm yàlla ne afa kullama jaakum ndaxte du ndax bete bu dikkalee leen rasulun ab yonent bi ma laaj ca laala laata wa sopp ko anfusakum ay bakkan seen istakbartum ngeen rëylu fa fariqan ab kuréel kadabtum fenloo ngeen niki isa da ngeen koo fenloo ba fariqan ab kuréel taxtuloon ngeen di leen rey ni ki Zakariya ak ñi mën noonu ak Yaxya wa te ñu ne qulubuna ay xol sunu xulfun ay aat lañu dañoo muuru xam nga góor bu juddoo kanam gi day muuru def lu mel ni ab kawas ba bañ koy dagg dugal ko néeg ab góor noonu kanam ak góor di muuroo si juddoo doon ab aat noonu la ba nu Israël wax ne sunu xol yi ay aat la dañoo muuru ni kanamu ku ñu jongalagul bal déet la ana um rëbb na leen alaa u yàlla bi kufri im ca kéefër seen fa qalilan niiw na te aji niiw na maa yuminuuna ak ngëm seen wala maa jaa a um ba dikkalee leen kitaabun ab téere min indillahi tukkee fa yàlla musaddiqun bu di aji dëggal lima maahum ca téere ya ñu yor wa nekkoon nañu min xablu ci njëkk yastaftihuna di ñaan ndimbalal ubbi alal lasiina ca ñaaña kafaru weddu nañu buñ mësaan a xare ñoom yahud yi ak yëfër yi dañ daan ñaan yàlla te bu ñuy ñaan yàlla dañuy wax ne yàlla na nga nu dimbale ci yónneen bii dikk ci ci mujjug jamono ngir dara jaam ak jëmmam nun nag yéefar yi kon yahudi buñu daan xare ak yéefar yi ci Muhammad dikkagul ci barkeeb Muhammad lañ doon ñaan ah loolu islam indi na ko di nettali ko xaw ma nag araamal na comme déet waaye alxuraan moom saxal na ne yahud yi bu daan xeex ak yéefar yi dañuy ñaan ci darajay muhammad te booba muhammad dikkagut yàlla daa leen ca may ba ñuy am ndam mu di leen ko fàttali xaw ma nag ginnaaw bi yàlla daal dëpp na loolu tere naa ko bu ko kenn defee tamit def waaye yahudi daanoon ko def di ñaan ci daraja yi Muhammad te dikkagut te buñ ca ñaanaan yàlla may leen te bi mu noppee nekk li nanu ko falammaa jaa'ahum ba dikkalee leen nag maa araftum ma falammaa jaa'ahum ba dikkalee leen maa arafu lañu xam te mooy yónni yónnent bi kafaroo ñu weddi bi ci moom kon falaanatullaahi rëbbum yàlla alal kaafiriina yal na nekk ca wayi weddi ya yal na nekk ca yéefar ya bii sa bon na laalal istaru jaay nañu bi i ci moom anfusa um ay bopp seen maanaam laala jooju muy wax nag mooy la nga xam ne noonu noonu noonu la ñuy waxee noonu waaye moom laala la wax bii sa bon na maa laala istaraw jaay nañu bi i ci moom anfusakum ay bopp seen an yakfuru mooy ñu weddi bi ma ansala ci la ci la wàcce alaa sunu borom baxyan ngir añaan an yu nasira ba wàccet ba wàcceet alaa sunu borom min fadlihi ci ngëneelam ala man yashaau te ku ko soob wala boog ci kamu soob min ibaadihi ci jaamam wa baau te ñu dellu bi xadabin ànd mer ala xadabin ci kaw mer weddi nañu la wàcce añaane nañu kamu ko wàcce ci moom mer nañu ci wàcce gi yàlla wàcce alquran muy xadabin ji jëkk ji alaa xadabin mer nañu itam te ka mu yónnee wàcce ko ca ñaari xadabu yooyu benn bi la xadabu ji jëkk ji wàcce alxuraan neexu leen tawreet defoon na nekk xadabu ñaareel gi yéen ci yàlla moom mi ngi ko wàcce neexu leen noonu naa nekk neexul walil kaafiriina ñel na way weddi yi asaabun mbugal muhiinun mu di doya dal wa yi saa xiila la um wa itaa qiila waxees na la um ñeel yëfër ya aminu gëm leen bima ansalallahu ca la yàlla wàcce xaalu nu'minu ñu ne danañu gëm bima unsila alayna ca la nga xam ne wàcceef na ko ci nun muy tawreet ak lin jiil yahudi dañuy wax ne anun kay mënuñu gëm lu ñu si luñ wàcce ci ñun te ñun ñu ngi wàcce ci ñun tawreet ak linjiil kon dañuy weddi alquran mu ne wa yakfuruuna ñuy weddi bi ma waraahu la ñëw ginnaaw tawreet ak linjiil te loolu la ñëw ginnaaw tawreet ak injiil moo di alquran jii ñuy jàng ñun wa uwa te moom alxuraan jii alxaqu dëgg la musaddixan tey dëggal limaama ahum la ànd ak ñoom muy seen alxuraan yi tawreet ja ak linjiil qul waxal falima ngir lan kon taxtuluuna ngir rey anbiyaa allah i yàlla yi min qablu cëg njëkk ca jamono ante ca jamono ante ak yonent bi lay waxal ña jamono ña jamono ante ak yonent bi lay waxal wax yii te seeni baay ak seeni maam ma ko defoon waaye da leen neex te lu la neex ca nga bokk rey ga seen maam ya daan rey yonent yàlla yi dafa leen a neex ñoom moo tax yàlla dina wax ne ngeen di rey ay yonent ngeen di def nangam ngeen di def nangam ndax seeni maam moo ko doon def booba ñoom juddiwuñu waaye buñ dikkee dalee na neex te dañ koy damoo xaw ma nag addis boobu ñu naan ku lim sa juróom-ñeenti maam yi ceddo yaa leen fukkee safara am naam déet waaye alxuraan ji moom mi ngi alxuraan ji nga xam ne moo dëppoo wax jooju moom mi ngi nii yàllaa wax ak yahuud di leen adressé jëf yu bon yi seen maam yi te ñoom defuñu ko waaye li tax ñu leen ko nag te defuñu ko da leen neex loolu moo tax te nit ki lu la neex te nga bokk moo tax mu wax ko ak ñoom mel ni ñoo ko def in kuntum ngeen nekk ngeen mu'minina di way gëm tawreet ndax tere nañu rey nit ci tooñ te tawreet wala xad jaakum dikkewoon na leen Muusa Muusa bil bayyinaati ànd ak kéemaan yu bëri su ma taqastum te bu te bu ngeen jaamu al cellu sa topp ngeen jaamu su mastaqastum topp ngeen jaamu al ajila sa min baadi yi sa gannaaw ba mu demee sa miixaat ya wa antum te yéen zaalimoona way tooñ ngeen way bokkaale ngeen ci jaamu googee ngeen doon jaamu xirim ya wit axas naa fàttali xul ba ñu jàppee miisaaxakum ab dige seen wala fa naate ñu yëkkati fooxakum ca seen kaw ak tuura montagne ma xusoo jàpp leen maa aatay naakum li ñu leen indil bi xuwatin ci dëhër ak ak jëfe wasma oo te dégg leen lañu leen digal dégg ko nangu ko jëfe ko kon banu israil bi ñu daata gëm tawreet yàlla daa yëkkati tuuri Sina tiimale leen ko ne leen bu ngeen gëmul mu daane ko seen kaw xaaloo ji ne sami naa dégg ko waaye nag waa naa te mooy lañu sa ndigal wa usri boo wa usri boo te jaxa sees na usri boo jooju jaxa sees na lay tekki te jaxasees na fi xulóobi i ci seen xol ya al ijla sopp yëkku ba ak jaamu ko waaye nag la ko waral bi kufri im ci sababas kéefër seen xul waxal ne biisa maa ñaaw na la nga xam ne yaamurukum digal ne leen bi i ca loola imaanukum tawreet in kuntum ndem nekk ngeen muminina di ndax ñoom loolu ñu def dañuy tawre moo ko digal ndax tawre diglewul jaamu cëllu sa te ñoom doon nañ ko jaamu xul neen in ndem nekk na lakum ñeel leen a daarul kër gu mujj ga te mooy aljanna indallaahi fa yàlla xaalisatan yéen dong min dooni naasi walis nit ñi ngeen yéen ba muy dugg àjjana fa ta fa fa ta man naw leen al mawta dee in kuntum ndeem nekk ngeen saadixiina di muy dëggal yéen a moom aljanna ginnaaw yéen a moom aljanna te aljanna dee ak tay tax a dem lu ngeen di xaar ginnaaw yéen a dem moom àjjana kay yéen a cee dugg déedéet wala ñu taman naw nahu te du te du ko mébét abadan mukk duñu ko mébét abadan mukk bi maa xaddamat ngir la def jiital ko ay im seen i loxo rek ci lu bon walaaw yàlla alimun aji xam la bi zalim ci doonkat yi te xam googu mu leen xam bi ci yem waaye dana leen fay mu ne wala tajidannahum dëgg leen fekk ñoom yahud ya aaratan naa ci ñi gën ji xëri nit ñi ala xayaatin ci dund ba mu ne lasiina ak ca ñaa nga xam ne ashraku bokkaale nañu musrikuuna musrikuun yi ñoo amul téere gëmuñu dekki ñoo war kon ñoom ñoo waroon a gën a xër ci dund mushrikina yi gëmu téere ñoom ñoo waroon a gën a xër ci dund waaye yahudi ne am nañ téere ñoom ñoo ñi nga xam ne ñoo gën a xër alul kitaab ñoo leen gën a xër ci dund ñoo leen gën a ragal dee moo tax mu ne aarata naati ala xayaatin min allazina ashraku yéen a gën a xër ci dund sax ñi nga xam ne dañuy bokkaale te yéen ngeen am ngeen téere yéen a nekk ci dëgg wax jooju jeex mu daan ne yawaddu dana ngéeju ahadu um kenn ci ñoom law yu amar bu dundaa bu dundalee na bu dundalee saat ko ya lu mu màggat màggat li muy bëgg ñu dundalaat ko alfa sanatin junni at wa maa uwa te moom junni at yooyu bi mu sa si hii di aji soril ko minal asaabi te mbugal ga an yu amar ak dundam su dundoon lu tol noonu itam dundu googu du ko teree dem safara walaaw yàlla basirun aji xam la aji gis la bi ma yaxmaluuna ca la ñuy jëf te dana leen ko fay xul neen man kaana ku nekk na adduwan di noon li jibril ñeel jibril fa innahu naka jibril nazalahu mooy ki wàcce alquran ala qalbika ci sa xol yow yonent lu tax loolu yahudi dañoo laaj kuy wàcce wahyu ci yonent ñu ne leen jibril ñu ne jibril noona ndax moo ñu daan wàcceel mbugal saa yi yàlla daan buggal suñu xel yi rek la yebal moo di buggal kon alxuraan ju wàcce ñun gëmuñu ko bu doon muy kaa il sax day nu gëm ndax moo ni indil naataange yàlla wéy nag ne ala qalbika bi ismillahi ci ndiggalul borom bi musaddiqan alxuraan di way dëggal li ma bay na yeddañ ji la mu fi fekk ci téere yi jëkk ya wa wa udan te dig njub wa bushra tey mbég lil muminina ñeel way gëm ña man kaana ku nekk nag adduwan dig noon di laay ñeel yàlla wa malaykati yi malaakam yi wa rusuli yi ak yonentam yi wa jibrala ak jibril wa mikaila ak mikail fa inna laa naka yàlla adduwun ab noonu la lil kaafirina ñeel way yi te ñoom ñooy way ya wala kat ansal naa ilayka te xelset nañoo wàcce woon jëme ci yow yonent bi ayatin ay laaya bayinaatin yu di weex tar set wecc alaama ajjatin bayda layluhaa kanaarihaa wa maa yakfuru te du weddi bi aa ca laaya ya illal fasiquun ndare way génn ñi ci topp ndax mu ne ah ndax ah rek awa kullama la waaye ah ji rek mooy ndax ah ndax wa kullama ahadu bépp bu ñu wëlëreen wëlëreeg yàlla ahdan ab digee ci topp yeneen ti bi nabata u daal di koy wacc tànni fariqun beneen kuréel min um ci ñoom bal déedéet aksaruhum lépp ci ñoom ngën ji bari ci ñoom ngën ji bari seen laay mu noona bi ñu gëm muy quatre-vingt-dix-neuf foofu la yem tey ci quatre-vingt-dix-neuf ci laay mu noona bu subaak la dale